Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, Monsieur le ministre, maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sa collaborateurs yi nga àndal yëpp di rafetlu aussi projet de loi bi nga xam ne andil ngeen ñu ko tey mu porté sur le contrôle des laboratoires d'essais et d'études mu nekk loo xam ni euh, Sénégal soxla nañ ko kon dañuy rafetlu bi ngeen bi ngeen ñu ko indilee Assemblée nationale mais nag euh, sama benn collègue daf ko wax tout à man en tant que dakaroise parce que je pense que ñi fi jël parole ñëpp ci ay député amul kenn ku ci dëkk Dakar kon bu ñëpp mu nee méttitlu li nga xam ni moom lañ def BRT ak TRT yàlla ñun la ko séddee ñun waa Ndakaaru muy la presqu'île du cap cest c'est-à-dire la région de Dakar kon bu ñëpp mu nee méttitlu loolu rawatina ñun ñi nga xam ni suñuy infrastructure li ñu président Macky Sall defal ñun région de Dakar gisuma kenn ku mu ko defal def na fépp de mais en matière d'infrastructure routière di président de la République def dans la région de Dakar def ko fenn kon monsieur le ministre ñun ñoo ngi métti lu bu baax a baax avantière hier damaa jóge marché jaar euh, euh, Fajar may xool arrêt BRT yi niñ ko tojee sama xool bi dafa jeex ba benn instant damaa dem ba pharmacie Ndingala ma gaari sama oto wàcc dox dox dox dox xool ñëw jëlaat sama oto mu nekk loo xam ne lu metti la ku leen wax ni mettiwul metti na nit ñi riverains yi daf leen a metti population dakaroise yi da leen metti mais toute la population sénégalaise li nga xam ne dafa xew ku ko condamné yaa ngi yaa ngi nekk ci loo xam ne erreur la amul explication ku essayer expliquer ko rek xamal ni yow billaahi wal ci naa fekk yi nga bokk li xew ndakaaru amul explication démb wax nañ ci consulat yi parce que le ministre des affaires étrangères était là mais tey li xew mooy que ni le ministre des transports moo fi nekk li xew ndakaaru ku ko condamné wul yaa ngi ci erreur ñun metti nañu ba ci kanamu yàlla ñu leen di wax nag le président de la république ni ma ko xamee comme j'ai l'habitude de le surnommer le champion du social koo xam ni chaque jour bu xëyee suba ba guddi day dox ci loo xam ne moom mooy améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises xam naa ni du bàyyi te yow mi mu dénk liggéey bi tamit doo bàyyi ñu leen di wax rek commandé waat leen na weer yi ñëw mais ngeen jël seeni matuwaay aussi képp koo xam ne dangaa jóg pour yàq li nga xam ne askan bi ñoo ko moom mais berte président da ciy dugg waxuma la président de la république man Mame Gueye Diop dugguma ci BRT terre bi man jëluma ko parce que am naa sama oto maa ngi koy dawal mais néew di doole yi nga xam ne war nañoo mën a am seeni carte quinze mille francs ñuy dem ndakaaru di ñëw di jëndi marchandise di yóbbu tënjeej di yóbbu caaroy di yóbbu yëmbal di dem fu ne ñu ni la kaay ñu ñëw ba gaaru routière bu Rufisque nañ ko taal au nom de quoi affaire yu yabaate yooyu pour lan la lan la man mënuma ko expliquer ku am explication bi nga jox ma ko parce que depuis lors maa ngi posé wu ay questions mais je n'arrive a à trouver des réponses par rapport a ces questions là am nañ lu ñu naqari trop trop trop te dama ne daf kaa wax léegi en séeréer gis nga yàlla su nee waaw ku ni déet suñu boroom niwaat waaw nga ni déet mu niwaat waaw da lay supprimer ba pare daa di jël ki nga xam ne moom la bëgg mu ni waaw président de la république suñu boroom moo ko fi teg nit mën naa gëm de te du nangu ñaari mbir la gëm dara ak nangu dogal c'est la c'est deux sos différentes ñëpp xam nañ ni par force la ku mu neex ak ku mu naqari di nga nangu ni président de la république il est le président de la république du Sénégal waaye te nangu dogal googu dafa am ñoo xam ne seen xol yi yàlla daf ko kaste ñu dugal ci milieu politique bi loo xam ne billaahi wal kitaab war nañ ko xoolaat parce que nag politique bii jaamu yàlla mënu koo gën a rey man de je me dis tout le temps que ni kuy def politique yow yaa war a gën a am fay suñu boroom parce que da daj loo xam ne ci askan bi yow yaay wax soxla askan bi yow la askan bi di ñëw di di seen soxla loo nekk nekk xale boo dëkkee ci ab gox di def politique lañ lay seet si sa kër duñ ko seet si même borom barke boo xam ne mi ngi ci koñ ba kon ku nekk ci politique war nga cee mën a jaamu suñu borom mais nag avec la manière suñu bëggee ñël ñëpp def leen si benn sac man maa bañ maa lànk bay ut ku ma lànk le bokkuma ci sac bi nga xam ne mooy politiciens yi nga xam ne dañ leen di tudde ñoo xam ne dañuy dundee politique parce que nag dañoo am suñu liggéey balaa ñuy dugg ci politique yàlla di ñu dimbali ñuy jël si suñu doole di ko joxe je prends l'exemple du président de l'Assemblée nationale je pense que tey amuñu dara luñ ciy dolli ndax sama maman Soxna Mbodj dafa wax lépp macha allah mu yor pharmacien di dimbali jaam yàlla yi di leen dimbali bañ jël ko jox ko maire yi gis nga premier mandat yomb na mais deuxième mandat moo jafe président Macky Sall am na premier mandat am na deuxième mandat te troisième mandat la wax nit ñi naan ay deuxième quinquennat troisième mandat incha allah président da koy amaat parce que sénégalais ñoo ko soxla maa ngi jégg lu baax li ma bëggoon wax bëri na mais en tout cas ñun ñoom incha allah ce projet de loi dinañ ko voter bu soobee suñu borom merci beaucoup. merci chers collègues la parole est à notre collègue Seydou Diop Daba Wañaan la suivante.